farul yoon muy directeur général en tout cas ku nekk fonctionnaire surtout administration centrale lu mënti xew décret moo la faloon décret moo la folli buñ la falee doo dem ci euh, presse bi pour wax fal nañ ma donc buñ la follee mais amoo benn droit devoir de réserve euh, loolu la tekki donc directeur général bi dafa waroon euh, en tout cas muñ denc ko bañ a def ci place publique parce que administration kenn du du ko waxtaanee ci place publique ba naka noonu ministre bi euh, yaakaar naa du jël kàddu parce que tant que mu ngi nekk ministre warul jël kàddu euh, loolu su ko defoon ba dina ñaaw ci moom dina ñaaw ci ci gouvernement bi donc devoir de réserve moom euh, dañ ko waroon appliquer maintenant nag lu mu indi mooy que nit ñi dañuy tuumaal. te loolu mën na discréditer DG bi mën na discréditer ministre bi mën na discréditer gouvernement bi ba pour wane la daal que mbedd du pour état